مصطفى واليد يدوى قولي الهادي مصطفى مزاد ويدوى قولي الهادي مصطفى مزاد ويدوى قولي الهادي مصطفى تقريبا يدوى قولي الهادي مصطفى غير ما لدوى قولي الهادي مصطفى asalaamaaleykum mbokki jullit yi asalaamaaleykum mbokku taalibe yi itam boo leen déggee kàddu gi rek xam ni ñoo ngi waajal bés bu am solo di bésub lislaam tey bu ñu ko waxee itam képp ku naan ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah ñu ngi waajal bés bu mag nag te kër goo xamante ni yaakaar naa dootuñu leen ko euh, présenté ci diwaanu Casamance euh, ci diwaanu Massassoum euh, quartier Kankaba yaakaar naa bu ñu ko waxee xam ne foofu ay nitu lislaam la ñoo fa dëkk ay wàll yu kaamil tabarkàlla tey nag mu mel ne ñu ngi bu baax a baax xalifa bi nga xam ne mooy xalif général Serigne Mouhamed Moustapha Moro Kallo ñu ngi koy ñaanal yàlla sunu borom guddal fanam gën ko doole defal tawféex tey sëriñ Najaax ko saxaat daare ni ci barke yonent bi sallallahu ki nga xam ne duñ ko présenté muy Serigne Ousmane Wilaya Kallo Kalou ibnu Serigne Souleymane Kalou yaakaar naa moo yor kaddu Serigne bi ñu fas yéene nag am bës bu mag boo xam ne ñoo ngi koy waajal euh, ci diwaanu euh, Casamance Massassoum euh, yaakaar naa mu nekk loo xamante ni tam muy ziar annuel boo xam ni at bu jot daañu ko amalee foofee nga xamante ni képp nag leen xam-xam ne ay wàllu kaamil lañ bés bi nag ziar bi moo ngi nekk le 20 mai 2023. incha allahu rabbi nag mbooleem njabootu famille Kalo ñu ngi leen ci woo di ci woo mboolem kilifa diine yi nga xam ñoo ngi fii ki diwaan réewum Sénégal ziyaara bi annuel bi nag yàgg nañ ko di ko amal depuis 1997 2023 nga xam ne kon nag loolu yàgg nañ ko def duñuy sori ci kàddu gi dañuy jox nag ki nga xam ne moo toogal sëriñ bi fii tey muy sëriñ Ousmane Wilaya Kalo la ñu di ko santaat bu baax di boroom xam-xam di wàllu kaamil sax ñu la ñuy wax ndax bu ñu nekk naam ndaw waaye tamit xalifa bi itam mu yor fi kàddu xalifa gi sëriñ Ousmane Wilaya Kalo asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu alhamdulilahi waxda wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi salallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman shahidatan ala waxdaaniyatillah wa ala azamati mawkutillah wa xalkillah allati nasalullaha biha an yamna qulubana bi xaybati wa azamatihi wa ala kulli cheyin kadir ukaddimu uh, nafsi ana usman bnu suleyman fi marsasum casamance wa uxayi azoama addiniyin fi alam وفي سنغال كازاماس أتكلم باسم الخليفة العام مولانا الشيخ محمد المصطفى مورو قال أيده الله وحفظه وعلى آله وصحبه أجمعين yo mbaɗi mandinkolu mbalu kontonna mbal jeyla alhamdulillah yo mbe diyamula yaal min kete mouhammadul moustapha moro kallo marsa sum sate kono o le soto enanta jare kela le 20 mai yo ɓakele mar sasun kono momoɗon ñalon ko ka fo ko ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah sallllahu alayhi wa sallam imam moro ko ayal be kili mo be sama be je akaye alaji moustapha silla fanan konton anin corno abdourahmane eh, diallo marsasum imam ratib ayo fanan be konton anin dino buntonkol be anin sénégal dino buntonkol be yo imam moro le kirloke ana dokowolu min kata ismaila ani lam jaabo ko sina alsine dankun ziyare ñimma alhamdulillahi rabbil alamin yo min tutaje mi soodi seri mun tahala machallah kon ñoo ko déggandoo noonu mbokk jullit di mbokk taalibe yi dégg ngeen ni ko sëriñ Ousmane Wilaya Kallo ibn sëriñ Souleymane Kallo waxee yaakaar naa ni woote bi benn la rek dégg ngeen ko ci kàllaama arab waaye itam dégg ngeen ko ci kàllaama soose dégg ngeen woote ziar annuel bu mag a mag bi nga xamante ni ma leen ko waxee woon ñoo ko doon tàmbale depuis ba 2023 naa ne woote bi nag le 20 mai la 2023 dégg ngeen neen ñoo ngi woo képp ku naan an la wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ñu ngi lay woo ci bés bile di ci woo mboolem kilifay diine yi nga xam ñoo ngi ci diwaan réewum Sénégal di leen fàttali adresse bi nag Casamance la euh, Massassoum waaye nag ci quartier Kankaba mbokk yi ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di woo ñëpp ci bés bi képp ku dégg rek li nga xam ne moo di annonce bi rek mooy sa woote asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu هل هادي مصطفى وليوني ويبوى دولي هل هادي